2024 ñu tàmbalee ko euh, ci boppu xibaar yi ak euh, lu tiis ndax Mademba sook nekkoon fi syndicaliste moom génn na àdduna ajjuma euh, guddig ajjuma jàpp samedi tey jii moom Mademba Sock ñu gënoon ko xam ci wàllu liggéey ak tamit taxawal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di liggéeykat yi ci banque ay yoxo ci wàllu courant bi tamit moom Mademba Sock mu génn àdduna amoon ci am amoon eh, juróom benn fukki at ak eh, juróom kan moo nekkoon eh, Mademba Sock ana lan la doon liggéey président Bassirou Diomaye Faye lu mu wax loolu dinañ ci ñëw ci xibaar yi beneen ponk bi nga xamante ni moom moo gën a fës di tabaski gi tabaski gi nag xam ngeen ni marché yi dafay fees dell ñun nag dinañu dem Thiès Diourbel ñëwaat fii ci Ndakaaru wàllu pomme ak li nga xamante ni moom moo di soble si ana nan la ko ñi nga xamante ni jaaykat yi di jaayee loolu dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi ci ponk yi ba léegi ñu des ci euro 2024 bu football di xew ci Allemagne Espagne sànq moom mu dóor door yi métti dëkk bi di Croatie loolu tamit bu journal bi di jeex dinañ ci euh, ñëw. mbokk yi li moo nekk ponk yi ci xibaar yi nees tuut rek ñu ñëwaat ngir gën a yaatal. jëf mbokk yi ñu ngi ñuy ko ci euh, xibaar bi nga xam ne xibaar la Mademba Sock génn euh, tamit taxawal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di liggéeykat yi fii ci Sénégal loolu kenn mënu ko fàtte président Macky Sall tamit moom àdduna ci génnuk àdduna Mademba Sock mu Mademba localisme fii ci Sénégal lu am am solo la euh, moom da doon xeex rek ngir liggéeykat yi am euh, situation bu nga xamante ne euh, situation bu jaar yoon la xalifa Sall tamit addu na ci ne Mademba Sock nit ku màgg la woon. wante ngir gën a xam kan mooy Mademba Seck ana lan la liggéey fi nga xamante ni moom moo di Sénégal euh, moom mu nekkoon njiitul Sétélec ci at atum 1990 euh, jàpp 1998 ñu tëjoon ko fi sax kaso ba euh, woyal ko woy boo xamante ni sax siiw Youssou Ndour way ko Moussa Mané ñëwaat na ci loolu yëpp. Monsieur le la République. premier mai ak beneen. gis nañ ne ne lu bëree bëri ci li nga xam ne mooy contexte bi ñu nekk ci li nga xam ne tam ay revendication ci askan wi la te loolu tamit nekk na jafe-jafe dëgg ci euh, bërëbu liggéeykaay yi. sa profondeur. ci atum 1990 la ko ñu bëri daal di ràññee moom. nekkoon secrétaire général syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekkee fële ca Sénélec li ne mel nag daal di koy jox doole bu baax a baax te noonee la daal di waat union nationale des syndicats autonome du Sénégal mu yàgg xeexal liggéeykat yi bëgg-bëggam mooy fépp fu liggéeykat mënta nekk ci Sénégal ñu daal di koy jox ak ak yelleefam ba mot sëkk nag mu doon xeex bi nga xamante ni nii yàgg na koo xeex fépp ci Afrique. 1er mai 2024 méngoog fête du travail la mujjee jël kàddu gi doon janoog ki nga xamante ne nii moom mooy njiitu réew mi. je voulais rappeler waaw dama bëgg a fàttali rek ne ci euh, jamono ji ci euh, fa ñu toll am na loo xam ne mooy wàllum fiscalité ci wàllum salaire te yaakaar ne loolu tamit war nañ cee mën a xoolaat ay l'IRPP ak impôt sur le ak lu mel noonu loo xam ne kat mën nañ cee indi saafara. de sécurité sociale. ci njeextalu atum 1990 njëgum courant gi yokkoon lool ba jéggi dayoo. loole nag bokkoon ci li nga xamante ni nii ñoom dañ ko doon xeex bu baax a baax ba Sock daal ci ànd ak mouvement bi daal di wëyal xeex bi ànd seeg mouvement sociaux yi ndaw ñi ñëpp daal di woon engagé wu ngir rek daal di xeex li nga xamante ne nii dañ ko jàppoon injustice ba Sock ak mouvement bi daal di boole seen doole ngir rek daal di door xeex bi boycottage heures supplémentaires yi cumul de post wala sax réparation yi nga xamante ne ni dañ ko war a amal loole nag ñoom ñëpp daal di banque seen yoxo ne duñ ko def li ni mel nag daal di woon dugal Sénégal ci jafe-jafe yu metti coupure amoon doole bu baax a baax ci réew mi li ni mel nag taxoon ba woykat bii di sunduur Ndour daal di woon fenkal benn woy mel ni rek ku koy laaj anakat moo nekk ci ginnaaw coupure courant yooyu le fii ci Sénégal nag mouvement syndical daal di ñàkk nit ku mag koo xamante ne nii xeexam bi yépp moo nekkoon ñu jox liggéeykat seen àq ak seen yelleef waaw am nay tamit wàllum salaire yi ci collectivité territoriales yi ama tamit li nga xam ne mooy wàllum poste ak li nga xam ne mooy wàllum chemin de fer te rawatina li nga xam ne mooy xëyu ndaw ñi loolee jafe-jafe dëgg la te lu am solo la ndax it ñu ngi yaakaar ne daal war nañ cee mën a indi saafara ndax xaj ëpp na sax ñu di koy dumóoyu jërëjëf euh, Moussa Mané Mademba Sock tamit ñeent fukki at muy xeexal ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat yi fii ci Sénégal ana lan la jariñ ñu nga xamante ne ñoom ñooy ndaw yi di yëngatu ci wàllu grève di taxawal tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeykat yi benn chronique boo xamante ne Mamadou Lucie Albert bind na ko jox ko Mamadou Cissé euh, mu teg lii di bàttam ñu déglu leen. faatu ki nga xam ne mooy ma dem ba Sock loolee daal ñàkk la nit ku nga xam ne ci wàllum syndicalisme daanaka ko fës la woon ci moom Mademba Sock mooy incarnation syndicalisme bi nga xam ne sax mooy moom fa sa bopp waaye tamit fexe ba lii nga xam ne daal mooy liggéey bi nga xam ne moom la askanu liggéey ku ci nekk mën cee gis boppam loolee mi ngi ko daal di suuxat ci li nga xam ne mooy nguuru socialiste yi ba ci première alternance ci atum 2000 la ay grève sectorielle ci wàllum courant bi ci wàllum njàng meeg njàngale mi ci wàllum wér-gu-yaram ay yoo xam ne day toftalu ci liggéeykat yi nga xam ne ñoom tax na Mademba Sock nekk daal koo xam ne seen jafe-jafe moom la ñuy woo ngir mën koo saafara syndicaliste autonome ci wàllum enseignement ci Sénégal waa SAES jaare SUTELEC ak secteur bi nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram ci wàllum administration publique lu baree bëri daal loxoom dugg na ca ngir rek xeex ba nga xam ne moom lay xeex loolee mën am njariñ waaye tam ci wàllum courage am ñàmbaarteem ci détermination gëm boppam gëm la mu ne tey jii mu doon la mu doon moom Mademba Sock moo daal di marqué dunduk syndical bii ak ci wàllum ci wàllum syndicalisme ak ci wàllum entreprise moom ba Sock dafa amoon style bu nga xam kat moo ko moomal boppam discours bi nga xamee ne kat lu bëree jot na ko cee soppi moom ci boppam fexe ne ba yëngal wàllum syndicalisme nii ak la nga xam kat mooy mbébétam moom Mademba Sock daal di dugal loxoom ci nga xam ne mooy participation ci liggéeykat yi ci wàllum xeex ci fexe daal ba gouvernance institutionnelle ku ci nekk mën cee gis sa boppam rawatina société publique yi nga xam ne mooy IPRES FNR ak ñu mel ni ñoom moom dundam yëpp ci wàllum syndicalisme la mu am ci solo lool ak ndono lu nga xam ne bàyyi na ko ñii di ñëw ak ñi ñëwagul ñu di ko jaale famille am ay jegeñaalim liggéeykatim ak ñi nga xam ne ñooy wàllum syndicalisme nii ak ci askanu Sénégal la ñu koy ñaanal suuf woyof ci kawam. Maremba Sock suuf woyof ci kawam ñu wax rek mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom euh, ñàkk euh, wuy suñu borom ci Paris. Euh, ñu wax ci lu nga xamante ni moom moo di tabaski gi ak lépp lu ci tof ñu ngi ko doon wax euh, bu ñu jukki xibaar yi euh, ci Thiès nag dañu seetlu foofu ne njëg yu pomme de terre wala sax soble si dañu ko yokk bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Aly moom mooy vice président UNACOIS di xool rek lan moom mooy njëkk yi foofu moom àdduna ci ñu déglu ko ci micro Binta Traoré ak Matar Baba Diarra waaw ah, dañuy njëkk ci prix yi prix yi moom méttiwul méttiwul ji nii mën a wax mooy pomme de moo xaw a cher tuuti mais soble moom vraiment actuellement disponible la ci marché bi deuxième bi ci des mooy prix bi méttiwul yenn métti yi ndax daanaka li ëpp ci marché bi te jii soble bi li muy jar ci sac de vingt cinq bi six mille la li gën a cher six mille sept cent cinquante six mille sept cent cinquante boo koy xool mooy deux cent par kilo détail bi dina dem ba trois cent trois cent cinquante affaire yooyu kon yaakaar loolu moom wax di yàlla méttiwul ci côté pomme de terre bi moo xaw a cher parce que pomme de terre bi tax mooy benn nit moom moo ko am di ko jaay ci prix yoo xamante ne day xaw a métti te fi muy jóge tam dafa sori moo tax bu yëgsee ci marché bi day dem ba onze mille onze mil cinq cent ba douze mil sac de vingt cinq kilos bi léegi nag bu dee douze mille la mooy nekk quatre cent quatre-vingt quelque bu ñu jugee euh, Thiès euh, ci tabaski gi dañuy dem Diourbel ci Diourbel ñoom tamit ñu ngi waaj li nga xamante ne moom mooy feetu tabaski gi euh, ci marché yi nit ñaa ngi jënd di ñëw ci fi nga xamante ne foofu la ñuy jaay ay yére wala ak ay dàll am ci ñoo xamante ne dañuy defaru ci loxo wala ak yeneen ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo jaaykat yi foofu nee nañu ñu ngi xaarale ne rek clients yi ñu ñëw wuy si leen ñëw jënd si ñu ànd ci ak Abdoulaye Diallo ay fan yu néew rek des ñu daal di dëgmal tabaski sénégalais yi ñu ci wàccaay si ñenn borom kër yi di concentré wu ngir wutum xarum mu ñu mën a lewatal ci bésu feet bi le ñi ñoom ña ci wër ci marché yi ngir mën a satisfaire seeni soxna ak seenu njaboot ci jouru tabaski bi le ci marché Ndoumbé Diop bu njaareem foofee nag ambiance ba mu ngi au rendez-vous waaye bu ñu sukkandikoo ci yenn jaaykat yi ñi nga xam ne ñoom ñooy client yi ba léegi nii ñu yéex a jënd loole nag moom mooy xalaatu jaaykatu prêt-à-porter bi le tabaski bi moom jegeen presque mais daanaka boo xoolee marché bi demee noonu ñun moom Jurbel d'habitude jëndkat yi moom dañuy bàyyee ba dernier moment rek ñu doog a jóg ren aussi contexte bi mu ñu fekk tamit mel na ni tamit dana xaw a wute ak nam daan demee jaaykat bi itam di jaay dàll moom itam lu nu mel lay xamle waaw instant bi de moom daal instant bi doxagul quoi parce que événement bi Diourbel moom dernier moment la gars yi commencé jënd mais ñu ngi koy waajal ñu ngi koy pare bagage yaa ngi commencé wàcce instant bi nii moom dëgg yàlla Ah, ay jamaa yu rafet sax mais instant bi moom gisaguñ client yi ak nañu itam ay tatoueur ñoom ñi nga xam ne nag ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax teg ci di client yi. tatouage moom a déroulé yenn yi. mais nag pour le moment ñu ngi fortaatu benn malgré situation bi yëpp ñoom commercant yeeg tatoueur yi ñoom am na nañu yaakaar bu baax a baax gis ñii di client yi laata. bésu tabaski bi la ci tabaski gi ba léegi ñëwaat si ndakaaru ñoom tamit ñu ngi koy waajal ci mbedd yi ku nekk mu ngi jaay jaaykatu pàkk jaaykatu fourneau tamit euh, wante lu ñu seetlu rek ñoom euh, nee nañu njëkk yi dafa yokk bu euh, baax a baax ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ci kontaan loolu moom mooy ñu am xam ñooy marchand ambulant yi ñu ànd ci ak Matar Bari yi jaayum accessoire yi nga xam ne day nekk ci wàññ nekk na loo xam ni dafay dox bu baax ci bi nga xam ne ñu ngi waajal tabaski ay sénégalais yu bari nag rawatina marchand ambulant yi def nañ ko mu nekk seenu business ci période bi ñu nekk. paaka yi de moom chaque année lañ koy defee rek bu desee ñett fan la ñu démarré dundee yaakaar góor rek comme moom li lañ fa am liggéey ba pour am rek waa ñu ngi sant yàlla na wax dëgg fa yàlla mu ngi ci mu ngi faj suñu teraanga. ay paaka ay jaas yi ak yeneen i accessoire ñu daal di ko exposé ci mbeddu ndakaar yi di xarandi ñi nga xam ne ñoo di clients yi. waaw ah, paaka la ñuy jaay jaas yi ak lépp loo xam ne dañ koy soxla rek ci kër yi dañ koy jaay ci dañ koy jaay ci njëgu accessoire yi nag mu ngi dox ci diggante téeméer ba juróomi téeméer ci suñuy koppar mu ngi tënku rek ci li nga xam ne moo nekk ci poche client bi. paaka yi am na 1500 am na 1000 am na sax yu 500 yooyu yëpp am na fi jaasi 2000 2500. jaaykatu furno yi ak grillage yi ñoom itam suñu ginnaaw benn yoon. indi leen ay fourneau yoo xam ne daa ànd ak euh, four ak ay euh, fourneau yu ànd ak lakkukaay ak ay brochette paaka grillage jaasi. bagage yi nga xam daal dinañ ko soxla ci kër gi yooyu lañ leen indil fii. fi mu nekk nii nag ab affluence bu néew la ñu nemmeeku ci boobu la business waaye fii yëg ñu yegg ci fête bi jaakati ñoom ñu ngi dundee yaakaar. daana gën a yëngu nag mais xam nga bis bi des na. suba ginnaaw suba. fekk gars yi jënd xar yeeg yooyu ba pare. ci la ñu di dooratal paaka yeeg grillage yeeg yooyu. mais nag ñoo ngi sant yàlla rek mi ngi dem ndànk-ndànk vraiment. chaque année moom noonu lay demee ndànk-ndànk. incha allah am nañu yaakaar ne d'ici tabaski. bi dina gën a dox daal. njaayum accessoire yi nga xam ne day dem ci wàññ bokk na ci métier yu ñu nemmeeku ci période bi ñuy waajal tabaski nekk na ab occasion bu baax ci marchand ambulant yi ñu mën a feesal seeni poche su nekkee ni njëg yi dafa cher ñi nga xamante ni nag ñooy gouvernement bi alxames bi weesu toog nañu wàññi lu nga xamante ni moom moo jëm ci euh, yenn euh, produits yi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa forum civil Birahim Seck jiite leen nee na ñoom ci loolu nañ ci ànd ak gouvernement bi gunge leen ba mu sotti ba noppi gouvernement bi yeneen doggal yi nga xamante ni moom la waxoon moom lay jël ne dafay def ay kuréel yu nga xamante ne kuréel conseil interministériel ngir ñu sukkandiku ci nan la ñuy def ba sénégalais ñu teggil leen li nga xamante moom mooy dund gu màggat gi ñu andi ci ak jëmu lu soxal dogal gi nguuru Sénégal jël ngir wàññi njëgu dund bi waa forum civil ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax taxaw fas yéene jàppale nguur gi ba mu yegg fu mu bëgg a jëm mu di féexal askan wi Birahim Seck ak i naataangoom ñoo ngi it fàttali nguur gi mu doole réew mi toll ndax am na ay mbir yoo xam ne lu mel ni wàllu dund yëfi wekkuwul ci mbiri réew mi dong ndax dafay ñeel ni njëg yi di doxee ci àdduna wërngal këpp forum civil di fàttali ni Sénégal daanaka lépp lu muy dundee daf koy jéggaani loolee bu ñu si boolee njëgu transport yu jéggi dayoo yi ak wàllum assurance lu ni mel dafay wàññi bu baax a baax la nga xam ne mooy dugg si gafab opérateur yi civil nguuru Sénégal war na gën a liggéey si soxal soqali mbay mi fii si mim réew ba lépp lu ñuy jëfandikoo mën a bawoo si biir réew mi ndax jàpp nañ lu ñu mel dong moo ñu mën a yóbbu si liñ duppee souveraineté alimentaire maanaam moom sañu bopp si wàllu dund si soxal nag digge yi nga xam ne nguur gi digge na ko askan wi ñeel rafetal yorinu mbirum réew mi forum civil di ñaax njiitu réew mi ak ñi mu àndal ñu fexe ba jëmmaal li nga xam ne fas nañ ko yéene waxtaanee ko ay yoon yoon ci conseil des ministres. forum civil di leen fàttali ni seeni jëf dong lañ leen di àttee di sàkku it ci nguur gi ñu fexe ba gën a farlu ci lii di transparence maanaam di leeral naññ anam gi ñuy yore réew mi fexe ba lépp di jaar yoon ci noonee mu ngi sax diggal gouvernement bi ñuy gën a waxtaan ak seeni i agent yi nekk ci administration publique xamal leen ni ñu war a amalee passation ak yorinu commande publique bi rawatina yu marché public xamal leen nit naka la ñuy yoree bu baax alalu réew mi. waa forum civil yamuñu foofee ndax ñu ngi leen di ñaaxit ñu baral liggéey bi ñeel coppite yiñ ne dañ koy indi si anam gi ñu sampe COS-Petrogaz di comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz li ñu bëgg mooy ñu andi si joyante yi war ba askan wi gis seen bopp bu baax a baax si pétrole beeg gaz bi bëgg nañu it ñu gën a farlu si lu soxal xeexum ger ak lewal alal ju lewul bëgg nañu daal nguur gi jëfee lépp li nga xam ne digg na ko ak askan wi bu ñu euh, génnee ci lu nga xamante ne moom moo di tabaski gi ak njëkk yi euh, ci Louga beneen jafe-jafe moom moo fa am ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawalkat yi war gaynde yi ak chauffeur yi nga xam ne ñoo si gare routière bi ñoom ñoo am ay jafe-jafe ndaxte euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy war gaynde yi chauffeur yi dañ ne li ñuy def teguñu ko fenn client yi nag ñuy jàppale moom mooy waa war gaynde yi ki nga xamante ne moom moo di góor a suñu correspondant defal nañu foofu benn reportage ñu teewlu ko. tulludul ay bés ci tabaski bi regroupement chauffeur yi nekk ci gaaru ceer bi ci diwaanu luga taxaw téeméer ngir xeex war gaynde yi ndax dañuy yàqu seenub liggéey ñoom ñi nag daal di bloqué fi nga xam ni mooy buntu luga bi léegi dañoo bëgg auto transport war gaynde bi kenn doot fayabe war gaynde affaire sàcc la mun la ñàkk xëy na ñu ngi sàcc mais nag fësal ko tamit du ma ko nangu waaw war gaynde moom dañuy yàq liggéey mooy ñun ba ñu ñu chauffeur safoor si képp ku yor permis tey dund ci oto ñëwal garage nga liggéey fa soo liggéeyee bu ngoonee loo fa war a am nga am ko mais war day ndey amuñu licence amuñu sañ-sañu daw war wargaynde yi nag seen côté ñoom ni jàpp ni chauffeur yi bëgg mënul nekk mais lan moo tax ñoom ñoom transporteurs yi ñoom ñoo ñëpp doole ñoom ñene ñeen ay xale la ñu bëgg a liggéey lan moo tax ñoom buñ jëlee ay oto duñ ñu ko jox duñ musu ñoo ñëw imposé ñu loolu de buñ ko jëlee seen i jarbaat lañ koy jox ak seen i mbokk mais musu ah ma jox la chauffeur kaay jox la ah kaay ma jox la transport nga nga bàyyi oto allo Dakar bi fii koo ko fi defal mu bàyyi ko ñëpp am terme transport fii mais dama ne la wargaynde dañ leen a war jox autorisation ñuy daw di dem di dikk parce que ñoom ay xale la ñu ngi doog a dugg ci àdduna te dañoo yor njaboot waaw te seen oto yi nag moom la ñëpp gën a taamu ko seen set place yi li ñu bëgg nag mooy ministre bi mu sax oto yi mu dugg. coowal transport bi nag doon loo xam ni bu si autorité yi daal di waxul dina ëppi loxo. ñu wax euh, ci euh, tàggat yaram foofu la ñuy jeexale ci euro 2024 bu football nga xamante ne ci Allemagne la ñu koy amalee euh, jongante yi Allemagne démb moom moo dóor dëkk bi dee ko cinq buts. Euh, juróomi bal ci benn euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, waa Suisse ñoo doo trois bal ñetti bal ci dara ci benn ñetti bal ci benn ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Hongrie Espagne sànq def na ay simili rek moom moo dóor Croatie ñetti bal ci dara fi mu nii nag Italie moom mooy moo jëloon coupe bi bi passé ñoom daanaka ñoom ñooy jonganteeg ñi di waa Albanie Euh, score bi nag mu ngi nekk ku nekk benn bal ci euh, ku nekk yaa ngi am benn euh, but mbokk yi lii moo fi gënoon fës ci xibaar yi ci 19 bi maa ngi leen sant di leen gërëm ci lu ngeen ñu doon teewlu en attendant leen di suivre suñuy programme yaa ngeen jëf